na merci beaucoup yow aussi fii nga fër la. amee lu ñuy def. nice na macha allah bañ ngeen mer. <laughs> ginnaaw ay jam. Mhm. te duñu ay non man ak yow. certes on a sorti on a vécu des bons moments des mhm. mauvais moments mais tay tamit tok nañu ba yalla defatul dara suñu diggante Malay xolé beut bi nga xamné ni bon en fait je te prends comme une sœur. j'ai rencontré une femme. Et j'aimerais bien vraiment, je dois la marier. thématiques, en fait. Il parle de la stigmatisation faite aux femmes aussi. Et quand je parle de stigmatisation, je parle de manque de tolérance vis-à-vis de certaines euh, personnes membres de notre société. Parce que quoi qu'on dise aussi, on est dans une société où on nous parle du statut de la femme, mais moi je trouve qu'il y a une très très grande euh, contradiction entre ce statut et le vécu réel des femmes. Les enfants aussi sont euh, une couche de la société qui est un peu en rade et qui ne s'exprime pratiquement pas. Je trouve euh, injuste qu'en tant qu'une société au 21e siècle, qu'on soit toujours à ce stade. Le cinéma n'est pas fait pour donner des leçons de morale. Euh, les thématiques sont, sont choisies au feeling la femme aujourd'hui, elle est traitée de sexe faible, pour moi, il n'y a pas plus euh, insulte que traiter une femme de sexe faible. Et après, ces mêmes femmes traitées de sexe faible, elles sont... Euh, on leur témoigne qu'elles sont en, mode parité. Donc il y a tellement de choses à, revoir dans cette société. Et, waa papi bi ngaa ndekki xaaroo ma yow tamit. munu ma la xaar parce que man damay damay xëy damay liggéey. heure bi gis nga heure bi nga jug ko la kaay. doo ma jox li ma la waxoon. lan nga ma waxoon. ah fàtte xaju fi ndawtal bi. Ah, sa mariage bi. woon naa ko sax mais Jojo wutal liggéey. jéemal jàpp ci dara. bolé won na la ak mohammed au moins nga dem def entretien ak mom mais bo beleg yaangi yaa nelaw ak di yeewu xolal heure bi nga yeewu. tay dina la ko jox mais nak tanké dina dem may wuti liggéey yow rek may wuti liggéey. fobé rek bombé kar kum ko jox nga mu nek mo ci yoy yoy eh waay daw sax. mais te service traiteur li yaakaar dafa am lu ko dal une deux trois muy wax ko xëy man maa xëyul fenn fenn rek xëyu ma mën a entretien bi la laay toog ci kër gi di xëy di njëkki añ jot ma añ reer jot ma reer def lu ma neex sama papa da ko yor ba mu tollu nii di ba mun maa yor fii da laay toog nga may yor di ma jox may lekk di ma jox ma naan ba keroog may am jëkkër dem sëy ngay bëgg lu yomb bon léegi man maa ngi xëy waaw damay dem mais euh, dépense tey bi moo ngi tey nag ceebu yàpp laa bëgg euh, añe bu am soos nag. yow da nga fàtte euh, mariage bi tey la di te yow ñun ñaar kese la léegi après bu ne ma def ko reer. ah mais eh, normal mais tamit problème moom man sama kër tant que maa koy am tant que maa koy mën moom du chaque jour dañuy

man da xawma lay triste mel ko am decc te ñu am xew bu mag bu ñu wara def. papi neena bala ñu genn génn kër gi na togg añ ba pare. añ bi ku ko yaay yow ya fi nek man ak mo te papi nga xam 6 h lay wacc te man lu ma gëna jax ma mu ñëwee du añ di famu ne lay nek di faraatu ay biscuit weeg popcorn mané nga solo nga ñu ñu dem. joojo da nga bëgg papi ray ma xana muy yi xana bu lay ray sama kaw lay jaar. dama na la nga solul nga ñëw ñu dem man naa gis añu traiteur di añ fii xalaatuma ko solul nga ñëw ñu dem yow laay xaar ndax ma léegi nga pare wax naa la lu ma xam jë papi xanaa da nga kaa fàtte. mujj te da bëgg tey dina ma rey de yow nit waxul woon ñu yàgg. yow eh téye sa fit bii papi nga xam ginaar la nelaw na bu yàgg. yow lan la yow xanaa xamul sa jëkkër kaay ma la benn secret ci sa jëkkër nag gis nga lu xew ci journée bi bu xëyee du ci débat bàyyi koog man nañ dem.

nga traîne traîner ba heure bi après tu viens tu m'amènes en me disant papi je sais pas quoi bu mon gros